amdi ci lo ne way sant ak moytu rek yaa ngi moytu wér ak jaamu yàlla ah. mhm. ki nga war dajel xana do ko moytu mom muy bombardi ji mi nga lek avance aw ma lu moy moytu ci mom wax de yalla mom amu lay moytu ci bombardi bo dege lolou loolu sant ak moytu mom mbiru suñu borom quoi uh-huh. sant ak moytu mbiri manam mhm. suñu borom nga koy def ah mais mais bombardi bo xamne da nga ne da nga koo bëgg daan ba tok ci kawam bi yoon est ce que lolou dina yomb lambu ja lu mu laaj suur ba rek ma def lu mu laaj bu suur ba ma def ko incha allah. lu mu laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. mais bi yoon na xam lu gars yi bëgg amateur yi. Mm-hmm. daan ba toog ci kaw. la ñu la la yi xaar ci yéen ñaar. yàlla mun na ko ci bu gaaw yàlla mun na xeex bu métti yàlla mun na ko ci ay seconde yàlla moom lépp la mun. ci ay seconde. ay jaam lañu dañuy sabablu. waaye. mais xeex ba ngeen xeexaatu est-ce que mënees na koo xaaraat. waaw lamb la lamb dangay ngay pare lépp rek. maa ngi préparé lépp. maa ngi préparé bëre maa ngi préparé xeex. Uh-huh. waaye di préparé ay lukki ci suuf. ay lukki. waaw wéy lan mooy ay lukki. waaw. gars yi xeex bu bees la. gars yi jàng armation dinañ la ko ah ñi jàng xam nañ ay lukki. comme si Serigne Mbaye Guèye. Serigne Mbaye Guèye waaw boo ko laajee dina la ko uh-huh. nekk nii ci ban état de forme nekk est-ce que il est prêt fi nekk nii actuellement. nii tey yàlla sant mais mënuñoo dem tamit laaj nañ ko ko sax nañ la ko laaj muy la li amul dimanche passé Balla Gaye ak euh, booy Niang ban gis-gis la ci Tapha am. waaw lamb la woon ah la woon ki waroon a daan daan na loolu la woon ah. a am. mais combat ba noo ko gisee noo ko seetaanee. non combat bu neex. bëri na ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp da ngaa bëreeg ñoom. dañoo bëre bëre bu neex xeex xeex bu neex. ñoom ñaar amateur yi ñëw làmb ji neex loolu la ah. dëgg yàlla. kii daan daan. kii daan daan. félicité boo ñaar di encouragé Balla loolu la làmb loolu. Mhm. kon yow boo ko xalaat ñee wax naan Balla ay dabbaay yeeg na yeeg laa boo ko ñoom xalaat. non Balla ak ñun même génération lañu. 2005 lañ démarré ñun ñëpp. waaw ah, 2005 lan moo tax muy bàyyi pourquoi pas. Mhm. non day dem defaru jiwaat entraîné. day dem defaru day xool lan moo ko yàqaloon après mu jëlaat naa yi nam rek loolu mais Babacar ñëpp ni Fadel ñëpp ni Balla euh, ni Tafatine bëreeg moom noonu la waroon bëreeg moom la waroon bëreeg booy ñaar soo gis ci loolu lan la ñëpp ne Tafatine daa non xam nga xam nga làmb kenn ku ne ak li ngay teg quoi adversaires yi dañoo bëri te bokkuñu man li may bëre Balla du bëre loolu booy ñaar du bëre loolu mm. loolu la quoi loolu moo def différence bi exactement am na solo

¡Mamá! Collé Ami Collé la sarax baa ngi noonu baa ngi noonu ndeysaan yor béjjën kooba eh yaram bi tàng na ma ngay daw yaram bi tàng na lay lay la dafa ngi noonu yaram bi day xasan est-ce que dugg ci biir war a def face to face diggante mag le B52 de Mbour dafa ngi noonu ndeysaan egsi na nga xamanteni bi fi la wara duggé mi ngi nonu rango ben col bu wex daf debara dabala mi ngi ma sha allah mi ngi duggal ñu mu àndal rakk jaa ngi di ñom sosé bay ndewan ñi ngi non ndaysan dafa ngi noonu xoolal ma ko dafa sañse ndeysaan mi ngi noonu di wax ak gaay mi ngi noonu day dugg day dugg ci biir la jëm bëgg ndam rek lan ngay waaw ñooñu moom awma seen fay di leen ñaanal yàlla rek ñu gën a jàpp rek te bàyyi di xam ne ñun yàlla làmb la ñu jagleel ñoom it ñu bëggee ñu ngir làmb kon nañ jàpp rek te yàlla tax ñu ñaan yàlla bis bi ñuy jëm yàlla may ñu si ndam. lu ñuy xaar si Tonnerre parce que gis nañ ne Tonnerre actuellement fi ñu na am xeex lu neex bëre lu neex yàlla may ñu ndam. Tonnerre Ndiakhoum bëri bëri loo looloo ma gënal Ndiakhoum la tuddee boppam. loolu looloo ma gënal looloo ma gënal. Ah. waaw est ce bu njëkk ma Tonnerre boo xam ne diggante ma Yékini Junior bi Tonnerre boobu xaat Tonnerre bu xaat boobu. mën nañ gën a gis sax bu raw boobu mën nañ gis sax bu raw boobu di ñaan yalla yalla moy ñu ndam lu sedd guy waaw lay wax njaaxum mi ngi lay sétan waaw njaaxum mom yalla nako yalla may wër may may wër rek ba bis ba yalla may ma ndam ci koom loolu rek la am lu may wax waaw tonnerre nga jógee ci défaite sa diggante ak dam sen jël njaaxum ndax nekkul risqué sa carrière non lamb fu mu tolni amatul risque parce que ñëpp ben lañ ñoy may ndé sens ñoy may ndé xaaliss comprendre nga ay duma jël ki na jël ki loolu mom amatul ci lamb fu mu tolni comprendre nga di ñaan rek yalla may ñu ndam waaye ay daam seen ak ay ay njaaxum ak ñoom ñëpp mbër lañ ñoo war a mën a bëre suñu biir loolu kese la du leneen waaw. day mbër day mbër mu sawar te soxor. ah yee wax nga dëgg looloo ma gën a sax looloo ma daaxal man mii ah su neexoon deret du dugg si làmb ji benn mbër benn mbër neexul deret mbër yëpp a naqari deret waaw.